écrit bu nekk da ngay am représentant fii ñu ànd ak suñu mbëri dafa am loo xam ne ku yàlla jiital da ngay àttam moom si dem toog ak ki nga xam ne bu wootee mais li nga gis ko mooy Abdoulaye Diouf ñu dem moom waxtaan ak moom ñu bëgg a def bu ñu waxtaanee moom ba noppi parce que fii lu lu faral si nopp Ablaye Timbo lu yëg si nopp Ablaye Timbo day faral si nopp Macky Sall ñun ñii xam nañ si leer parce que Macky Sall fii la fooy a ñun fii kaa jaaral nii syndicat fii piki lu mu bëgg Macky Sall di si ànd ak ñun Timbo di si ànd ak ñun mais comme lu mooy booy organisation dafa am. parce que juboo dana ko dafa am boo xam ne yéen a ko moom muy trésor mais xamul na nan ko bindee pour indi ko moom mooy bi wax léegi affaire bi ay situation du dara gis nga lii ngeen di def nii fii ñu nekk nii ku ku nekk ku yor responsabilité timbo bi ñëwee fii dañu laaj xaalis mais bu ñu ko yëgee xam ne bu ñu nee nee dafa nekk président Pikine la te loolu bu ñu ko wax il faut ñu wax maire boobu Ablaye Diouf kon dafa am kilifa yu nekk nañu joxe jour kenn ne la war a tëdd ne la ñuy tege gëm heure boo gisee Jules Balde gis euh, Baba Diallo gis euh, Faye gis kii gis mooy euh, Hollande gis Paala gis Abdou Ba gis Baba bii ki nga xam ne xale yooyu ñu wax ak ñoom moom jox ñu bureau ñu bind am na nekk secrétaire parce que équipe mu nekk am na secrétaire général te kii lii nga def vocation bi joxe yëpp xaalisam lépp xaalisam moo ko lépp moom la ñu nag jël seen ordre def si essence ci dem ci joxe vocation yi amul benn équipe ku si nekk am nga soxla yéen ñi fi nekk ñëpp ku si nekk am nga soxla ndax bàyyi seen soxla ñëw comme ñoom ñu ñuy defal dañu bàyyi seen soxla ñëw waaye du ñu toog fee di ko ay naan ko man naa ko ma loolu li ñu wax dafa li ñu wax dafa dafa dafa dafa nga am na nga leen nga leen fi jàll dañu waxante dëgg fii kenn wu fii pour yenn nit kenn wu fii pour jàngal nit parce que bu jógee mais toog fële ci teel ko lii bu fekkee ne ko def ci dem de te man ku ñëw baax na ku ñëwul Pikine xam ne ñëwoo bu koom bu problème amee yow yaa ko indi loolu mooy dina ah. mais bu ñu nekk ci di raay après affaire bi déedéet du noonu de yow man dama yëngu nit mu ngi yii toog bu amul dafa am soxla tey ñu ko doon moo tuddee France daf nekk dafa def leen fa bàyyi ñëw par force lay ñëw keneen noonu keneen noonu keneen noonu mais bu ñu wax bu ñu leen jox ñu ne xëy na bi suñu rakk na ñëw kër moom mais war na ñëw bokk sa organisation jàpp ci. maa ngi lay ñëw. ah. maa ngi lay ñëw. voilà day teel a ñëw jàpp si lii voilà loolu mooy ñu ne yi ah, dañu mën a def nekkul jiw si nga gàtt sa sa ñëw gën naa ko xam ñu ngay mais nañ leen waxante dëgg ànd bi bu fekkee ni dëgg la nañu ànd bi dëgg xale yi fi nekk ci leen seen bopp muy musi bay jàlloo ni kii Aliou Ba Jules Balde bokkul fii ay mag la ñu ñun yéen ñi bay ñëwul bokk fay booy secrétaire général xale ba ñëwul fan si kër bi mu dugal

waa booy bii dama leen dama ma des sama rakk waa ko yóbbu ko xaarim Njaay ma def ak kii maa laa jóg kii mu ngi nii premier saako ceeb bi mu jël maa ko maa ko fekk mu toog ko papa ma ne ko tuur bëri fii si la ko kenn fekke ko si mu ngi nii toog maa ko yóbbu kan xëcc ko fii papa ma am combat combat laa papa am combat ko papaam la doon dem keroog boo ko mënee moo jël sax ja nit tam li ngay yéene sa bala nga yéene sa bopp daan da ko yéene doomu jàmm Souleymane nii kenn mënu ma taxale moom Paala kenn mënu ma taxale moom boo fekkee stade may soxla bu nekk la moom day ñëw nit kii même chose am baaxul même chose kii gis ñu man Wisconsin, following